diggante Boy Waralo ak ki nga mooy tekki jël ñu ngi noonu ndaysaan a ah, waaye ñu ngi jaajëfal Pape Modou Mbaye bu baax a baax a baax ay grand réalisateur sunu mag sunu xarit ñu koy jëfal bu baax a baax a baax waaye gisee noonu mbëri yi ñu ngi si dernière réglage yi. ñu ngi si préparation yi. gis nga leen noonu. ah mi ngi noonu. arbitre baa ngi leen di woo bi. ñu ngi doon di ñëw ñëw si présentation baa ngi noonu gis nga. ay ca fi mi ngi noonu présentation baa ngi noonu de la soirée quatrième combat mi Boy Sibi ak ndeysaan ak Ndiak magicien présentation baa ngi noonu ay ca Boy Waalo Boy Waalo a ngi noonu moo nekk à gauche ndeysaan ay ca Tek Jël Tek noonu à droite mi ngi ngeen préparé ndeysaan mi ngi noonu ak Ndiak magicien Tek ak Boy Waalo loolooy troisième combat bi. ay ca prise de maa la ko ngi noonu. arbi baa ngi leen xool ba xam ni nañu wala néew ni xam na ne kàjjee ngi ci kaw. mi noonu. cey Cissé suma xarit doomu yaay prince mi ngi noonu arbitre baa ngi noonu gis nga noonu mi ngi leen di xool <laughs> ndaysaan mi ngi <laughs> Boy Walo tekki jël Boy Walo moo nekk à tekki moo nekk à ah. mi ngi noonu ah, ah, arbitre sifflé na combat bi diggante Boy Walo ak tekki jël ñi ngi noonu ñoom ñaar waaw waaloog tekki jël amooy ci mi ngi noonu ña ngay déggante ba waalo ngay seere ka laaja ba waalo teg pied droite tekki teg pied gauche mi ngi noonu Tekki Jaal ak Boy Waalo Boy Waalo nga koy jéem a diriger Boy Waalo ko bëgg a jàpp Tekki bañ ata Tekki dóor na waaye dalul eh Tekki lu muy def nii Waalo Tekki attention bay waala jàpp na sol na ko cabaxal la ko bay teg génn na bay waala doon ko jàpp teg ko tekki day jël avertissement jël na avertissement moom tekki jël Boy Walo ngi noonu ak tekk Boy Walo tekk jël moo ngi noonu combat baa ngi noonu attention Boy Walo bëgg na ko jàpp tekk bañ na jàpp na ko mooy jàpp na ko booy waalo tek tek ngi dóor booy waalo ngi koy dóor takk na ko kal na ko daan na ko booy waalo daan na tekki jël booy waalo daan na tekki jël booy waalo daan na tekki jël ndeysaan booy waalo daan na tekki jël mu ngay juli booy waalo daan na tekki jël booy waalo daan na ko booy waalo daan na tekki ndeysaan Mbaye Walo am na ndam ci kaw Tek Ndeysaan mu ngi noonu daan na ko jël bu rëy mu ngi noonu quatrième combat bi ñu jëm si diggante Boy Sébi ak Ndiack Magicien quatrième combat bee des Ndiack Magicien quatrième combat bee des mi ngi noonu quatrième combat bi moo nees bi Ndiaye ñu ngi lay ziare Djibson production lay ziare ziar na la